birthday to you. Happy birthday. Yàlla am bés bu door. Yàlla am bés bu door. Yàlla am bés bu door. tey damaa bëgg a wax tuuti muy sunu sunu papa ji ñu war a waxal muy sunu xarit muy sunu kilifa te soo jàppee ni daal rek parce que daal di ah daal di lañu tax. boo ko dañ koy wax daal dëgg la ku baax la ku modeste la ku gore la ku xam àddina la. ñi mu àndal ñëpp a ñàkk mais ñëpp la def milliard millionnaire dëgg la damay ànd ak moom daa woon am ñàkk téeméer moom moom ma di ko yóbbu avion du yóbbu avion yóbbu ko fàqi may sa ko picc daa wax ëttal bu dee mu ëttal xayaat ma ko fàtte mukk kon kii ku baax bu xewee bés bésam bi nag ci wax yàlla yàlla sa jàmm yàlla yàlla amiin parce que da maa dimbali ci lu bari bari barke seen ma kenn ndaw loolu nijaay Salimata Gueye kenn jox moom yaa yaa ni jox ma ci yàlla ndi ko may oto yóbbu moo may ma lii nit dafa ñu defal ko yàlla na yàlla bañ ko am. en plus li ma nekk ñu ba bay ànd ak dañoo ñaawaat mais léegi ñu ngi rafet. galan. ñun galan ñun galan loolu ah ñu ngi rafet. mooy que ñu ñu dafa ñaawaat laaj bi nga xam ko ñu. wala kii allez vas-y. kii mooy wax ko. waaw. suy wàll rek lay waaw. dama koy ñaan. ñaan rek moo ko def. wàññi nga. ku xool loolu wax xam ne xool laay wax ñun ñëpp la ko ndeysaan waa li daal xam laa koy wax waa li yàlla nga ànd amiin yàlla lu gën sax chaque jour yàlla na leen dàq gën a mën a way yàlla dàq yàlla dàq mën a way kenn du yow ba xam àddina pare yaru loolu ba pare yaru ba pare tontoo ba pare waa départ ba pare waa yenn sori boo xam ne ci la ak ba pare bu ñàkk ah, am la ah bu ñàkk am la li nga xaalisam neex moo ko liggéeyal boppam de. xaalisam moo ko liggéeyal boppam de. xaalisam moo ko liggéeyal boppam de. waaw nee na ma waxal ko. allez vas-y Dodo. asalaamaaleykum nag tey dama. yàlla la yàlla taxaw yàlla la yàlla taxaw nit ku baax la nit ku gentil la nit ku riche la ruus xam nga ruus ruus xam nga du ma émergé naa ruus tubaab bi naa ruus. non si naa naa ruus. mais ruus bi gën a kawe moom la. yàlla na yàlla taxaw. amuñu ku dul yow. ñu ngi mel yow la ba yeneen yàlla moo xam. Oh. fu ñu nit respecté. fu ñu nit joxee cër. fu ñu nit bëggee nit woo. dama di yow mii la. amuñu la. amuñu la de. yaay suñu satu be suñu satu bopp. waaw waaw waaw. tey bi ñëpp wax. tey ñëpp wax tey ñëpp wax. muy corona nag. corona. yàlla la yàlla taxaw yàlla la yàlla taxaw nit ku baax la nit ku gentil la nit ku riche la wii pour riis xam nga riis riis xam nga du ma émergé naa riis tubaab bi naa riis. noo fi naaj naa riis mais yow riis bi gën a kawe moom la. yàlla na yàlla taxaw amuñu ku dul yow ni ñu mel yow la ba yeneen yàlla moo xam. Oh. fu ñu nit respecté fu ñu nit joxee cër fu ñu nit bëggee nit woo demul di yow mii la. amuñu la amuñu la de. yaay suñu satu be suñu satu bopp. waaw waaw. tey nag ñëpp wax. tey ñëpp wax. <laughs> muy rol su corona nag. <laughs> rol su corona.